mbaa yéen a njiitu réew mi Macky Sall bés bi la journal askanu Sénégal gépp ngi toog taxaw mbaa ñu jokkoon di ko déglu tey ci discours bi nga xam ne dina ko fësal laata 4 avril gii yéegle kaay groupe bi jaabe njiitu réew mi Macky Sall tey ji nag la ñuy léttu mbaa ma firuñu ci coowal ñetteelu mandat gi jaaba jonge ci Sénégal yéegle kaay bi ne lu jëm na ci défilé 4 avril bi ni ki ëllëg muy waaye yeewi di Aminata Touré ñoom ñëpp ne gaay yi kenn ñoo lank ba banku ndaxte nee nañ duñ ci wax ni ndaxte moom njiitu réew réew mi Macky Sall tegul benn jéego bi indi dal fii ci réewum Sénégal ci jamono joo xam ne atu politique baa ngay jax-jaxe ci réew mi l'observateur ne gépp ngi toog di xaar lan la président Macky Sall war a tey daal askanu Sénégal les égo en tout cas waaye yeewu askan wi ak Aminata ñoom ñaar ñëpp dañoo xooti traite invitation njiitu réew mi Macky Sall jëm ci 4 avril bi nga xam ne ëllëg lañ koy màggal fépp ci réewum Sénégal suur soo ne a ne waaye tongal jaaxle ci waa Pastef yi lii lépp moo tax waa Yewwi gàntal ne duñu ci défilé bi ëllëg ci wetu njiitu réew mi Macky Sall yëgle kaay bi ne Aminata tamit ma ngay topp tànk Yewwi Askan Wi ndaxte nee na défilé bi du ca dem ëllëg ba noppi di sàkkoo ñu jox ko poste député ci assemblée nationale moom premier bu Sénégal bu ne ñu fokkati ci moom di poste député bi lay sàkku ñu joxat ko nu mu gën a gaawee waaw waaw réew mi korjene muy waa Yewwi di di ko direct news ne xanaa kay tey ji moom njiitu réew mi Macky Sall ponk yu lëndëm ci bopp askanu Sénégal gépp dina ko leeral bu weesoo nag réalisation yi nga xam ne def na ko ci bopp réewum Sénégal moom njiitu réew mi Macky Sall mu gindi askan njiitu réew mi Macky Sall ñu ngi koy xaar mu gindi askan wi ci am na si ñaari kaay di Karim Wade Khalifa Sall ma ko wax de moom njiitu réew mi Macky Sall ñu ngi koy xaar mu gindi askan wi ci coowal ñetteelu mandat gi jaaba jonge ci réewum mu léttaleen yëpp di jaaba jonge ci réewum Sénégal le regard ne en tout waaye yeewi daal bañ nañ vox sobil ne leader yeewi askan wi ñoom ñëpp kay ba ci Amina Touré ñoo lànk ba banku ndaxte nee nañu du ñu dem ci défilé bi ëllëg ci wetu njiit su réew mi Macky Sall yëgle kaay bi gaay gi dañoo gàntal dëgg laa lay wax nii ndaxte nee nañu taxawaayu Macky Sall ci bopp réew Sénégal loola waral seen jëf gi tey ji forum de justice sociale bu Babacar Ba ci vox sobil nii li ñuy moo ñu jege junni nit seen privé bu Sénégal réew mi daal jeex tàkk ndaxte Pierre Goudiaby Atepa seen gars yi ne nañ dafa doy fi ni ngi ci Sénégal jeex fi tàkk waaye itam dafa doy li jax-jaxi ci réew mi ndaxte ne nañu tension bi nag mën na tax ba investisseurs yi daal doon teg seen tànk mukk ci réew mi Pierre Goudiaby Atepa mi jiite club des investisseurs sénégalais ne sama bëgg-bëgg dëgg rek mooy Mame Mbaye Niang ginnaaw jënama taskatu xabaar yi ak lu mu wax ni day def appel ci cool ne waaye loolu mooy dëgg waaye Sud Quotidien ne sunu gaal puissance 63 te armée bu Sénégal noppi ngir défilé ëllëg défilé bu jéggi dayoo te ñu ngay xaar ñeenti junne alkaati ak ñaari téeméeri ñeent fukk ñaar ñeenti téeméer ak fanweeri benn oto ñaar fukk ñaari roppalaan yu ndaw juróom-benn fukk juróom-benn fas yoo xam ne dañuy défilé ak lu ëpp junne ñetti téeméeri juróom ñaari élèves ak étudiants yoo xam ne ñoom ñëpp dinañu défilé ni ki ëllëg l'observateur jox candidat Ousmane Sonko ak coowal ñetteelu mandat gi jaabaajoo nga ci réewum Sénégal le quotidien nga yëg nga ñàkk yëg attaque Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang kay moo yëngal nga sa waxtu bi ëttu attekaay ci réew mi grand place ne procès Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko kay jàppal ni bu dee am na ñu ci kontaan lool waaye am na ñoo xam ne ba tey daal bégguñ ci déedéet Abdou Karim fa war a gano jour di dimanche ak ay sëriñ ci bés bi la ne justice bu lépp lu maître Branco lal rek Abdou Karim Fofana daal lalli na ko te moom avocat Ousmane Sonko bi lépp lu mu teg rek Abdou Karim Fofana daal teggi na ko libération ne Ousmane Diagne tey lañ ko woolu waat ci kanamu division des investigations criminelles enquête ne en tout ko wax te dee waaye daal njiitu réew mi Macky Sall ak Ousmane Sonko ci boppam tënk réew mi jàpp réew mi otage lii colligéné borom parti réew mi Seck ma nga woon kër Ousmane Sonko ñu jëm ci candidature coalition Benno Bokk Yaakaar jëm ci élection présidentielle yi te moo de yëgle kaay bi nee na boobu le ponk Bokk Yaakaar yi waaye daal moom borom parti réew ma ngi cay ci ndaje bi mu amul ak waa mi njiital conseil économique social et environnemental nee na ngir jàppale njiitu réew mi Macky Sall bu dee dafa jaar ci ñaari tour présidentiel yi laas ne idi kay ma ngay bi ne en ci lu jëm ci élection élection yu dëgmal ci réew mi lopp vingt candidats ñoo samp seen dënd ñoom ñëpp bëgg jiite réewum Sénégal waaw lii tamit mbaa jàmm la force bi ne musiba dëgg moo ca xonjoo ndax ay nappkat yoo xam ne ñu nga dëgg ca Mboro ak ñeneen ñu Kayaar ñoo doon rag-rag gu saf ba ñu bëri am ci gaañu-gaañu ak ay gaal yoo xam ne ak i mbaal li yépp la ñu taal lii yëgle kaay bi ne image yi daal en tout cas doy na waar lool laa lay wax nii laas ne ñaar fukki sénégalais ak benn ñoo dee ci waaxu Tunisie ñoo suux ci géeju Tunisie te kuubul Jóob gi si lañu bokk muy Serigne Modou Abdoulaye Diop ak soxna si di Maam Jaara Jaata ak ñaari seen doom yi ñoom ñëpp a lab ci géej gi yëgle kaay bi ne gaay ne Tunisie lañu nekkoon bëgg a dem Espagne ñoom ñëpp waaye mujj ñoo yegg ndax ci ndox bi lañu des ñu bàkku jëm ci lamb ji ak sunu lamb fekk fa sunu Samba Xoyaan bi di Eumeu Sène ci jàkkaarloom ak Balla Gaye 2 bi ma ngay avertir ndax nee na nopp na ngir lépp ci combat bi ba tax nee na ci Balla Gaye 2 la des ngir seen combat gi ñu mbapat ko l'observateur ne musiba dëgg moom ndaxte benn waaye mënoon xuloo ñaare lam ci lu ñàkk fere jël paaka jam ko ko mu dee mais da ngay seet loolu rek